ca kaw Tiwaawan woote na dëkku leer baa ngi kaay leen gaañi Tiwaawan am ndam ku fa dem xam dam ko way ba yëg ni woy wi rafet na est-ce que pour être le prix Nobel de la littérature moom tax ma def ko wala déedéet dama bëgg keroog yombal xiyaam yàlla su jëlee woy wi rafetaayu woy wi ma yaakaar si rafetaayu woy wi yàlla dëgg si yóbbu ma àjjana arada tuhubba rasuli centenaire bi di nafaraat moom lu mu bind waaye li gën yéeme si Seydi Hadji Malick dafa yéem ñépp si bind bi mu bind si langue boo xam bi namp ko si yaayam c'est pas sa langue maternelle mu yéem ñépp ci langue boo xam bi ba yéem ñi nga xam ni ñoom ñoo namp langue boobu ci seen langue maternelle C'est Hadj Malick yéem leen gis na loolu mu bind li mu jur si littérature bi mu nàmp muy la littérature wolof duudu xoolal wolofal yi yu génne ci kër yi amna yu nu mën tudd amna na yu nu mënatul tudd waye c'est un patrimoine commun mu neex na mu naqadi la c'est l'histoire de la famille de la Malick waaye ku mel na borom dara ji dootu fi am ku mel na sëñ Cheikh si xam-xam bu rafet bi dootu fi am ku mel na Abdou si le culte du détail parce que li ma jëkk jàng en matière de gestion c'est que l'organisation c'est le détail Seigneur a toujours eu le culte du détail. Moussafa est en train de prendre cette bande là C'est une excellente chose. Le culte du détail. Et aussi, Seigneur, on ne délègue pas l'essentiel. À chaque fois que nous assumer responsabilité, nous devons assumer responsabilité ñooñu ñëpp ils sont irremplaçables remplaçables gis nga sunu ay waajur yi man maa ko babay la sëñ Cheikh ils sont indéplaçables non seulement ils sont indéplaçables waaye ku mel na ñoom dootu fi seen cëru bopp jagleel bi nga xam ne yàlla moo leen ko jagleel moom la leen defal nag daanu jéem nous sommes condamnés à essayer à cause de la douleur qu'il euh, nous donne le Seigneur. 19, 10 mois, on a dit, il est plus là. Frappe de Nudien. On dirait un centre, centre. Parce que c'est ce programme, Bob, Inch'Allah, son yale, et qu'attendant nos vidéos, qui continue à découvrir Moussafa dans toutes les présentations à depuis au moins une dizaine de jours même look-up, et pourtant je sais que j'ai une expérience de l'organisation ah. mais le détail le détail bi su affaire mais kooku le souci du détail la parce que moom ndox fu mu amul moom dara du fa jàng nan nan koy régler problème boobu il faut ñu régler que pas pas dans un mois mais dans deux ou trois jours mais moom mu nekk itam sa préoccupation principale xam naa fu mu gis autorité yi loolu la leen di boobu moo tax ma bëggoon rek xoolaat li nga xam ni moo xew ñu toog ñu waxtaanee Et moi, je suis confiant parce que mangi dem waaye am lu mu fi nga xam daanu ko nafar ba ko ko vu les ressources humaines qu'il y a dans la famille amul benn sikk si ni yàlla mën dimbali parce que les yiw la yëpp liggéeyu je la ak jullit ak njobootam on lors de la à la suite d'une longue journée, Mangi à Taxon, Bayami, j'ai eu trois heures d'horloge. Ah oui, j'ai eu trois heures d'horloge. Amna ñu may gis sur télévision mais ah, parce que quand même euh, Taxon Bayami, il y avait énormément de gens.

incha allah taala soo si jaaree yéen ñëpp daa ngeen kontaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Tiwaawan woote na dëkku leer baa ngi kaay leen. xool ay moyet bu ñuul boo ca denc jama wurus la bu seer loo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wax nañ ci aslëf naruñu woon yëkkati kàddu ndax jataay bi guddi gi ak li fi xew fan yi doy na sëkk kàddu rawatina dars bi nga xamante ni الشيخ محمد المنصور حفظه wa ورعاه ci la bàyyi ko léegi ak ñun déglu nañ ko yàlla nañ ci am dégg-dégg buñ ci amee dégg-dégg yal nañ ko topp te jëfe ko waaye bu ñu toppee te jëfe yal nañu góorgóorlu ba am ittey sellal yàlla boole ñu nangul diis na lool ci ñun ndax xorma yi ñu war a rangoo ci barab bii mi ngi ci ñun walla fii néegu yàlla la waaye waayu yàlla tëdd nii li cheikhul xalifa radiallahu anhu ci may yu rëy yi ci xam yàlla gi leppam yalla la ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى مو أم نيار يو جافي بن بي بارينا ولي يو كو أم واي بو نياريل نيونا ولي يو كو أم موم نك داف كو ايتيو با am na kamaaliya waaye bi gën a jafe mooy jalaaliya sëriñ Babacar si ñaar yooyu la boole moo tax kenn xamul kenn mënul xam kuy sëriñ Babacar ku dul suñu borom subhaanahu wa taala ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi foog yaakaar ni mi ngi tëdd tëraaya bu njëkk bi waaye mi ngi suñu biir wallahi alazim bët du ci tegu ku yàlla baaxe may la ilmul basira bëtu xol te xol ba sell yaay am yëg-yëg boobu yàlla nañ ko yàlla fayal kenn ci ñun amul mérite guddi gu toll nii guddi gu màgge nii ci néegub yàlla bokk àndandoo daje teewaloondoo di ko defe ci kanamu Seydi Aboubacar sens la bu ñu yàlla defal kon bokk yi ñun ñépp nañ bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin jëfandikoo tur yàlla subhaanahu wa taala sëriñ bi ne mi ngi ubbeekoo tur bàkk yàlla te di ko kañ di yëkkatiwaat ay cant jëme ci moom sëriñ bi nee na mi ngi yëkkatiwaat ay cant di ko jëme ci moom sunu borom sant ko yombul sëriñ bi ne ndax ki nga xam ni moo xam boppam kooku dong moo mën a sant boppam te yàlla rekk xam yàlla te yàlla sunu borom dong moo xam yàlla ak ñamu soppal yi ñi nga xam ne daf leen a soppal boppam ci biir jaamam ñi jël ñaag boobu mu jël ñaagi leen ko tedd maam ba bëgg si mu tedd mu mag mi kooku ci ñooñu la bokk Serigne bi ne lott nañu lool ci sant yàlla sunu borom te nu boole ca ànd akub tële it waaye nag ñaar yooyu di dikk ci nun du dab yàlla sunu borom ne bokkul ci min awsaafi subhanahu wa sëriñ bi kon yàlla sunu borom yàlla ni cas sunu jant yu matadi yéegi ko moom yàlla ci ak matam wala boog ñu faf wax ni yow daal yàlla yàlla nu wóotu santal ñu yàlla Pape Sidi ne ngi def salaatu ak taslim ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ki nga xam ni moo di sangu mboolem lépp yàlla lu yàlla bind ne moom sayiduna muhammad mi nga xamante ni moo di sawetaasu àdduna ak alaxira ne moom sayiduna muhammad kenn xamu ko ku yàlla sunu borom ne yàlla sunu borom moo wax ni man dama bindul sayyiduna muhammad ngir moom yàlla dong waaye nag kudul muhammad dama la bind ngir terale la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëriñ bi ne bokk yi nee danañuy faral di boole ci suñuy dagaan ci suñu borom tabaraka wa taala diko wax ni ko yow sunu borom su fekkee sam nattu day mënut a ñàkk mu bàyyi ko ci yow jëm si ci nun mu ne ko yow yàlla natt boobu de yal na nga nu nattoo nattub sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nag ci yan anam lay wax ak yow mais mu li lu gàtt lay wax ak yow yàlla nee ndax nag koo sopp danga koy roy muy ci bi nga wéetee ak bi nga wéttaliko nee tey nag moom la yàlla sunu borom joxoñ sëriñ bi ne ana lan lañu fi wax نيولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بآية بجه سرين بني نوغي رفت نجرت دي تلال سنو يا كارن جميج سنو بروم سرين بني كيب كو خمني يالا بقول تيب دفلو التوفيق كو كون كوكو دوكو باخي موم يالا te it yàlla du ko kàttanal du ko gindi itam ba mu mën a egsi joxe ziyaaram ci barab bi joxe fi ay ibaadaatam lañuy may nag lañu bëgg sëriñ bi ne lañuy may la nga xam ne moom lañu ñu bëgg ci yàlla sunu borom te yàlla nag jaarale ko ci góor gu tedd gi tëdd fii ne loolu nag moo di xorma rek bokk yi sëriñ bi ne loolu lu mat di bàyyi xel ma xorma boobu loolu nag xaw nañu te tuuti ne te ñoom nag xaala bi ñu nekke woon ci àdduna bokkul ak xaala bi nga xam ne moom lañu nekk léegi te nun ñépp ne jàng nañu ne al martabatu laa tusaani pap sëri pap sëri ne dafa seetlu ay yooni yoon ci ab soppeem dib taalibeem it ne muy mawlaana mam cheikh alxaaji abdulaziz dabba radiallahu taala anhu ne foo mas a tudde mam Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu su fekkoon mam Abdoul Aziz tëdd dafa naan bërit jóg toog su fekkoon it musóodu dafaa jóg toog ne ba nga koy tudd ci wetam su fekkee da nga fekk yaramam diis itam dafa naan bërit yàlla defal ko yaramu woyof ne loolu lépp nag nit ko may mooy gëm gu mu gëm mam Serigne babakar Sy radiyallahu taala agit sop go xamanteni sop nako mam Serigne babakar Sy ak it doyloo goo mam abdul Aziz doylo nako mam Serigne babakar Sy nee mam Abdou dafa massa wax fi ci siar général mam Abdou mi mboolem yéen ñi fi teew ñépp ak ñi nga xamni ne ñu fi te ñoom ñépp ñu am cofeel ci góor gu tedd gii mu ni ñooñu ñépp ñi fi teew ak ñi fi teewul suñu boolee seen cofeel ñu jël ko teg ko ci balance jël sof cofeelam moom maam Abdoul Aziz ci moom Serigne Babacar Sy ñu yëkkati ko te ko ci benn plateau ci balance bi ne bu keroogee kon bu ñu defee loolu yéeg seen cofeel ci benn palaat bi sama cofeel ci benn palaat bi ci blanche bi sama bos dina wat seen bos yaa sooy xaawan woote na dëkku baa ngi kaay leen xanaa kuutul yawma illana xaradun bi ma la day na fabu nun yaa di noon ki ñu far xalifatal seydi wal muxtaar Sia e Pagano! que pediu bay Serigne Moustapha wax na ni mësul gis ci benn bayit ku ci dajale grat yu mel ne noonu takkal ko benn jëmm mu ni yaa waarisal xut yow dey yaa doon seex ak maamam ra yonent bi sallallahu teg ci nag sa baay Cheikh Alhaji Malick radiyallahu nee te sa baay nag muy sëriñu sëriñ si mu ne baayam ba bay sëriñ Moustapha nee na mësul gis benn bayte bu xam ne garaat yu ni toll takkal nan ko benn nit mu ne su fekkoonte ni xasida bi dafa nekk caq ne bayt boobu mooy diigal bi kon euh, Pape Pape Sidi sëñ nee na nga baal ko Pape Mansour Pape Sidi nee na jërëjëf mbokk yi Pape képp ku yaafus du bokk ci njabootam mukk sëriñ bi ne am itte loolu rekk moo lay boole ci ay soppe mam sëriñ Babacar si ne keroog bi mam Abdoul Aziz waxee wax boobu fii ci kanamu zawiya bi ba mu noppee nag dafa am lu mu ci teg muy lam ca teg mooy jaribu taarifu ñu maye ne nga xam ni mooy magam ba daje ba di jeex mu dab ko ni ko nijaay siidi bëgg naa cee topp de ñaanal ma manit ma am borom kër Pape ni ko insha allah insha allah ان شاء الله ني بس بوبو تومبيك بسو الخميس باب سيدي ني اجوم مخي في تيواون دم دكار سامدي توبتي ديماش التيني ثلاثه ني مخي وا دكار سوبتيل di dugg si Tiwaawoon xelam ni yar ci borom daara ji mu ni na dem ziyaare ji ko ne bi nga xamante ni egsi na di gaare waruwaayam ne mu yaakaar ni Mouhamadul Mansour Gassama ci la yem nit nit nit la ne njëkk muy wàcc ne mi ngi ame ñaari parfon ut ñaari bëtéel yu ndaw ne benn bi moom utilisé na ko ba mu xaaj mu def ko ci poosam ne bi nga xam ne nag laalagu ko mu bàyyi ko ci oto bi ci ci buntu oto bi mu wax ci xolam ni baye abdu dal am lu mu waxon bëgg naa ko natt tey bëgg naa wax joojee nag man ma natt ko tey ci sëriñ mansour laa jëm ci bay sëriñ mansour nag ca laa jëm su fa jógee dinaa dem ci al amin su ma ci bay sëriñ mansour dinaa dem ci bay abdul aziz al amin wallahi wa tallahi nema mansour sur ma sen ko niko ah bay sidi de am nga chance gorgi dafa tejon fani waye ubina mu niko bay sidi de am nga chance gorgi dafa tejon fani waye ubina na bab sidi ne mu dugg si ci sal mag de naka lay tok ci soufre ne naka muy tok ci soufre ne cheikh ahmed tijani mu bax mi ne katchet buntu ba dal jóge nak ci néeg gor gi muniko ni ko ah ndijaay kañ nga fi ñëw muniko legi ko léegi laa fi ñëw muniko kon day xewal la sëriñ bi de ubbi na min ci bir muniko bismillah ne naka la egsi mu ni asalaamaaleykum mu ni ko kooku mu ni man la Pape Sidi Ahmed mu ne ko jege silwaay ne sama pap Mansour daal di jël loxoom dóor ko ci gannaaw sama pap Sidi mu ne ko soxla ma des wi de demal ca oto ba nga indi ah, <laughs> mu ne ko soo ko indiwul li ngay sàkku si lu faju jay sama pap Sidi daal di génn dem jël booba mu boole ko nag ak desit wi jox sam pam Mansour pam Mansour te loxo bi mu ko ndaw si day sey allahu akbar mu ni billahi te pap Sidi waxagu ko liko ko mom pap Sidi ni ben ngok mu daal koy ñaanal pap Sidi genn mu man kay na dem ci rawdu sama bàyyi mam Serigne babakar Sy nee booba teel na tuuti Pape Sidi ne bi mu tegee tànkam ci première biir bi mu gestu xool ci balcon bi ne dafa xamatul bay paati wala Ibrahim ku waaju la ne ndax kenn la ci seen kat la mu ni ko nii mu ni ko nii Euh, Pape Seydi ne mu daal di dugg biir kër gi mu dikk nag fekk sang bu tedd bu rafet bi tëdd fii sam Pape Abdoul Aziz Al ne wallahi Pape Abdoul Aziz Al Amin kenn du moom wallahi si ne ci toogaayam bu jaru bu jëkk ba ne sam Pape Abdoul Aziz ñi ngi ko defaral kafe ne bi mu ñëwee sa papa Aziz di ko xelli mu ne ko man di sëriñ bi li mu bëggoon mooy bii nga amee ma barkeelu ci mu ne ko ah Pape Sidi bismillah sa Pape Sidi daal di jël naan mu laaj ni ko naka nga def mu waxtaan ak moom ba léegi rek waxagu ko lim ko bëgg a wax mu ne ko sëriñ bi de tey dama laa bëgg a poñe boole ci séjour la mais ndeysaan cereyam ju neex ja tabaarakallaahu Pape Sidi ni ko ndax nag ñaar moo tax te nag ñaar yi moo di dama gëmoon ni yow sa turandoo di sa soppe bay Cheikh Abdoul Aziz Dabakh moo man coono ci ñépp papa Abdoul ni ko pap si di dangaa gën a gis gis ku ko gën a ñeme coono mu ne ko waaw si mu ne ko ana ko kan la mu ne ko al amin yow mii mu ni ko ah mu daal di ree ca reyam ja ni ko ah si dangaa baax rek mu ne ko bi ci des nag mu ni ko def woon naa ni day tabe ci sa turandoo la waaye nag ndekete yoo al amin moom yàlla dogal na mën na ci ñëpp sam pap Abdoul Aziz daal di reetaanaat mu ni ko nag dama lay poñe tey nag mu ni ko itte day moo ma indi ak yaakaar itam mu ni billaahi wa wallaahi wa tallaahi sam papa nee na mi ngi tiim bàmmeelam te it nag ñemewu leen sosal mukk donteel nag ku baax nga di si Malick mu ni ko ndaw si dina sëy mu teral ko nag boole ca ñaanal ko sa pap Sidi mu wàcc ci suuf mu ne man dey jaratul nag may agsi ci rawdu bi ndax nag li ma fi doon wut si maam Cheikhul Khalifa gàttanu na ma ba fajal na ma ko mu nar dugg otoom mu ne ah su ma jógee ci ñaar ñii nag dem du ma Euh, Pape ni mu ko gisee tey wallahi su bay Serigne Babacar amul woon ngànt tey mooy teewal si boppam ndax nag fii la hmm. mais na yàlla dolli guddal fanam amin dolli ko it wér amin ak i rakamit amin bay Cheikh Alxaaji Malik Maam Abdoul Aziz bay Serigne Babacar maam Abdoul Aziz bay Mouhamadul Mansour ak seeni rakk nee ak seen njaboot yu tedd yii ñu bokkal jotaay bi nee maam Cheikh Mouhamadul Mansour bay Sidi Jamil mi ngi nii toog ne mu di nag xalifa cheikh maam cheikh bay cheikh sidi mouhamadul moustapha si jamil di nag xalifa maam cheikhul xalifa tey jii ci kaw suuf nag pap sidi ne ñaari cër yooyu yëpp mi ngi la ciy nuyu di la ci ziyaara nag ne te di la ñaan nag nga nangul ko ziyaaram mais tekki nuyu bu baax ziyaara bu baax ne sayid cheikh ahmed tijani moham bay moham bay mohamadin il mansour ndokkeel leen ne tekki papam bay serigne babacar si bu ba al amin bay abdulaziz un pap si di ne kaar kaar mu ne allahuma la adurru mais ak mboolem rakk yu baax yépp ne Serigne Mouhamadul Moustapha ngi nii toog ne Serigne Cheikh Oumar ngi nii toog ne Pape Babacar Cissé mi ngi nii toog ne turandoom Serigne Sidi Ahmed mi ngi nii toog ne mu di turandoom ci dib soppee bi di sëriñam it nee ndax sëriñ bi da leen a boole ay yoon ñu ànd tukki waaye saa bu ñu dellu seere mu ne ko ah sëriñ bi sëriñ Sidi Ahmed daal bul ma yebalati fenn te boole woo ma ak moom ne papa Abdoul Aziz Al Amin daal di reetaan ne ko ah Pape Sidi Ahmed day boroomi mbir la sa Pape Sidi li ko ànd ak moom Pape Sidi Ahmed bi tukki daal lu neex la Pape Sidi ne mi ngi leen di ziyaara bu baax nee nuyu it bu baax ziyaara bu baax borom dëkk bi ndax nag caabi ji ci loxoom la ko yàlla teg mu di alxaaji Demba Jóob si mii sa Pape Sidi ne Jóob ji dootu ko ci boole de li muy wax daal mooy alxaaji Demba Si ne mi ngi lay nuyu di la ziyaara ne mi ngi la koy defee nag ci turu xalifa bi ne ndokkeel la masawu la ne ak mboolem kilifa yi nga xamante ni Seydi Mouhamadul Moustapha tudd na leen sànq sa mpab Seydi ne jërul mu di ci jaaraat ne ndegam Serigne Moustapha tudd na leen rek na ngeen xam ne sunu borom tudd na leen Pape Sidi ne mu ngi nuyu it mboolee mu xaddam yi mu fekk yépp ah ak sunu bokki taalibi yi mu fekk yépp it ñuy bokki xadara bi ak bépp jullit bu nu fi bokkal nekk itam ne ndax ñoom nitu yàlla yi seenu njureel moom dafa yaatu képp xoo koo xam ne jub nga jubal nga ci nga bokk Pape ne mi ngee defal mention spéciale nee nag mi ngee nuyu ma euh, maam Abdoul Hamid si te di ko ziyaara nee waaye nag mu ànd ak sëriñam yii mu bokkal toog ak nun ay bokki taalibeem ci turu xalifa bi ak mboolem rakkam yépp ñu defal cant mention spéciale ci ci Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha mii euh, bu Baye Al mu di cib taxawaayam ak taxawoom itam سبب سيدنا سري مصطفى اللهم لا أدر أمين دغنا دغنا بايام مام شيخ الخليفه رضي الله عنه واخوناني سو امي سمبك تي ليغا خام سي موم ييب دي اي كاليتي nga bëgg ko ko sédel ci benn jotaay né sa bu fa joggé ci jotaay ba fakastalo bu boobaa yaa ko fa kastal nee moom nag ci jëmmi boppam nee ak Cheikh Mouhamadul Hamid de Habib Mouhamadul Habib nee defe nañ egseegul nee kooku moom moom Mouhamadul Habib mooy borom daara ji Pape Sidi ne ak mboolem njaboot gi ñu àndaloon taxaw ci liggéey bi. ne na ngeen xam ne xalifa bi bëgg te it kontaan na ci yéen ne xadara bi bëgg na kay si mari sampab si di xadara bi it bëgg na ne jaboot gi itam bëgg nañu ne moom daal jaami yàlla yépp kontaan nañu sëriñ bi ne gàmmu yi fii weesu yépp macha allah sëriñ mouhamadul moustapha sampab si di ne jërëjëf sëriñ mouhamadul habib sampab si di nee na jërëjëf ne ak mboolem njaboot gi ànd ak yéen ñépp ci liggéey bi rawatine nag waa koskaas nee ñu jël lépp teg ko ci loxo suñu président alxaaji Ousmane Sam sëriñ bi ne limee duñu fi jóg ne mboolem dawaayir yi fédération yi muxtafina action daara ji mutahabina ne تبارك الله ak nag soxna yu tedd yi ne ñooñu soxna yu tedd yooyu la waroon jiital muy soxna Fatima ak soxna Safiyatu Pape Sidi ne mi ngi leen di nuyu ne mi ngi leen di ziyaara ne mi ngi leen di ndokkeel ne bi ñu dugg ba yem ci yéen ne sunu xol ak sunu xel dem na fu sori sabab si di ne way waay nanu fexe ba bu nu joggé ba di fi joggé wat di dellu suñu ndam nanu fexe ba duy ko ba mu fess te nanu fexe ba mu baña touru nak ci lan la yàlla tagge sayyiduna muhammad sallallahu wasallam mais mi ngi laaj ana lan la yàlla tagge sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bismillahir rahmanir rahim muni bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami nun wal qalami وما يستره ما أنت بنعمة ربك بمجنون ne ana lan la ci yàlla teg mu ni ko wa innaka la ala xuluqin azim loolu nag actuellement adduna le monde entier Pape Sidi ne loolu nag actuellement le monde entier crise bi ñu am dëgg ne crise bi nga xam ni moom la adduna bi yëpp am dëgg rawatina nak rew mi di dund mi dund di Sénégal modi di kirisu jikko mom la no amé nee xamul dal mom li xew mu léegi lan la ak fu mu jóge ne mu déggee ci wax bu bay Serigne Cheikh Ahmed Tijani si waxon radiyallahu anhu fi ci Tiwaawan la ko waxe mu ni réew mi day jot na ñu sang ko mam bay ko waxati ko waxati ko di ko ay yooni yoon jàkka yaa ngi fees ne jàkka yaa ngi fees jumaa yi ñi ngi fees yàlla bàyyiwunu waaye nag tey la problème yi gën a bari ne bi ci gën a metti nag ne mi ngi ko yox ay bokk sànq ne ñu ngi yéemu nag ci agression yi am léegi ak nag rey bi ni mu baree bokk yi ne xanaa xamuleen ni nit dana rey mbokk nitam te kat jëlul fetal rey ko ca jëlul jaas yi itam gor ko ca jëlul yéet itam fenq ko ko moom daal nga toog ba mu soob nga tekki rek sa lamiñ nga yëkkati ci kàddu gu safaanam nga jël ko rattax ko ci sa deru mbokkum gor ñépp jël seeni ba teg ko ci moom di ko ko xoolee ne yow dey rey nga sa mbokk moroomu gor moomu te suululoo ko wallaay si ne dëgg la mën nañ laa jàmbal docteur yi def yi te dindi ko ci kàttanu yàlla ñu faj góom bi ba mu wérit wala boog ñu jël leneen jam la ko bu boobaa buñ ko fajee liggéey moo fay des ku ko gis yaa génn liggéey ba won ko ko waaye ki nga xam ne nag da ko tuumaan wala nga ŋànc ko ci pénc mi wala nga xas ko ci pénc bi ne ku nekk nag la mu am nanu ko ko fonkal ne waaye li nu yàlla baaxe ci mbaaxam du mérite bu ñu am chance chance la boo xamante ni yàlla defal nañu ko waaye nañu ko téye waay waay ak suñu fukki loxo nun ñëpp danoo wax ni danoo tënku ci xadara maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala nu wax ni dañu ko gëm te doyloo nan ko te bi gëm gi nu ko gëm ak doyloo gi yàlla suñu borom rek a tax nee jëfe noonu ak moom ak i doomam ak i njabootam fawu kon dana nu am nu nu mel te moo di nag nu melowoo melokaan wi nga xam ni yàlla dana ko gërëm ne loolu de buñ ko deful sunu kànd ak ñoom nanu xam ni fii ci àdduna lay yem ne loolu nag yàlla ci yàlla boole musal amin ne ñoom day la nga xam ne moom la ñu du bëggal ba noppi yéene lu ko nee nu ànd ak ñoom kànn gi sar ba ëllëg amaam Allah lépp loo xam ne yàlla defal na leen ko ñu mën nu ca terale Pape Sidi ne waaye nag am na lool képp koo xam ne bëgg nga ko yow yaa koy kañul sa bopp ne loolu nag itteel la laaj ne fa tabaarakallahu sëriñ bi ne mu ngi leen di ndokkeel bu baax ne yéen dey ñëwati ngeen yeesalati ak bokk ne kon nag mi ngi tàll loxoom yàlla ci ñeen ni yàlla yàlla yeesal seen lépp amin ab Sidi day ñëwati gën ngeen feddaleeti kóllëre kon yalla na yàlla feddali kóllëreem ak yéen ne nak te lu mata baye xel la ndax yàlla moko wax ci alquran ne mo wax ne wa fu bil ahdi in al ahda kana mas'ula olof nag danay lépp ni kóllëre gannaaw lay fete sama Sidi Ahmed ne moom day léebu olof woowu d'accordu ci ne yow jaamu yàlla bi yàg kóllëre yàg kóllëre bi ngeen dox di ànd ba teewu ci kanamu yàlla sunu borom ne waxul sa mbokk doomu aadama ni yow waaye kaas bi nga xam ne ci lañ lay xellil nga di ca naan am nga kóllëre ak moom ne moo ne lal bi ngay tëdd sax am nga kóllëre ak moom ne jur gi nga jël ni ko pàkk yow ci sa biir ak moom ne garab gi nekk ci sa biir kër boo tàngee dikk féexlu fa am nga kóllëre ak moom ne waaw ndegam ñii am nga ak ñoom kóllëre sa digganteeg say bokki doomu aadama nag ne ñu bokk benn ëtt muy ëttu laa ilaha illa allah sayiduna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee nanu xam ne mag ñi parapagaanu kenn kenn kenn def ñu ba gis leen ñu doy leen nga dem jaayante ak ñoom ne yow daal yaa toog ba gis leen ñu doy la nga dem jaayante ak ñoom yàlla baaxee ñu ñu bokk benn ëtt yàlla it baaxee na ñu bokk benn ëtt bokkit benn teen bu ñuy naane ne mën na nu xëy kenn ku ne dem xëy sa xëy mbaa nga def dem ci sa ngont waaye nag bu nu demee ba ñibbi si jot ñoo bokk fu fanaan pap si di ne kon loolu war nañ ci gën a bàyyante xel bu baax a baax xatimul kulli ngi kaay leen gaañi Tiwaawan am na ndam ku fa dem xam yonen be Allah di Malik waaw waaw